mooy lan la ci jiitu mooy jàngale jàngal nit ki ba mu xam li mu war a xam nga yar ko ba mu mel ni mu war a mel muy jigéeni julli lu néew néew war naa xamee ay farataam li aju ci ak jaamu yàllaam waaye war nañ koo yar yarub diine itam ci wàllu jikko ak melokaan surtout nag ci wàllu ak col gi nag danañ ci ñëw ci kanam waaye war nañ koo yarit ci wàllu liggéeyu kër ndax nag et loolu moom daf cee dolli ah, yonent bi mu waxee ne isa salatil maratu xamsaha wa samat sahraha wa addat zakata maliha wa hajjat baytiha wa ataat zawjaha la ca teg moom bu jigéen góor ponki islaam gannaaw imaan bu ñu nekkee e, e, ñeenti ci misaal moom dañ ko caa dollil baneen muy topp jëkkëram ak taxaw taxawaay ba mu war a taxaw ci biir kër ga kooku mooy particularité bi loolu lépp tey kon mooy mooy bu jëkk bi muy ca tarbiya ba muy la aju ci islaam tokki ko jàngal ko ba mu la xam li mu war a xam tarbiye ko ba mu mel ni mu war a mel mais tokki ko ci jaamu yàlla ak tokki ko ci liggéeyu kër bi jigéen baaxoo def togg ak fóot ak paase ak entretenir kër ga waaye tokki ko yit bu yooyu jàllee ci liggéey boo xam ne dana méngoo ak ak aw melokaanam ba nga xam ne tey la mënta ñàkk ci lu ñu suturloo ba du jaay ngoram ak diineem moo mën koo def muy yooyu sëñ bi jàngale woon waaye loola yëmu ca bañ ko defee teew dañoo jàpp lu góor ñuy def kenn waleen caa jiitu kon ca xitma ba jël seen doole di ko def ci yoon yàlla bu bu yoon wi soxlaa di jën seen alal di ko ca def kon loolu mooy ndono li nga xam ne yor melokaan woo xam ne ku leen gis rek mu roy leen ni nag kon loolu mooy ndono li kon nag wan ban xawaay la soxnay yoonu murit war a am ci sàmm ndono loolu taxawaay la boo xam ne taxawaay bu rëy la surtout ci jamono ji nu toll ndax euh, li yàq bari na ruur bi bari na lool te noon yi nga xam ne ñoo laxa saayi woon doon jéem a gàllankoor Seexal Xadiim ci anam bu nekk ak njabootam waaye yàlla defal ko ca ndam lim ko defal ci ñoom waxan nañ ko nee na seytaane nee na koon mënaluma la dara yaag ñi nga jamonoon teel waaye cëy ba nga wan ma gannaaw kon seytaane tekkigul nga ngembam kon tey la taxawaay yi gën a waar sëriñ bi nag wàccoo na ak noonu ndax liggéey bii bi mu ko liggéeyee ba àggal dafa am lu am solo lu mu def lu mu nu fàggul mooy dafa wax ne ndono lii ma fi bàyyi mm, te liggéey ko ba mu sotti ban am ci ngërëmal yàlla ak ngërëmu rasulullahi man ak ñi ma ko àndalan ci ay góor yàlla buñ demee ba jóge fi ba nekkatun fi sunu borom maa ngi ñaan nga may ma ay sët maag ñooñu nga may nu ay sët la wax muy man ak ñi ma àndalan di wut yàlla yoo xam ne danañ sàmm liggéey bi ba du yàqu danañ ko sàmm ba du wàññi danañ ko sàmm ba du soppeeku xam nga mën naa bañ a yàqu te wàññeeku mën naa bañ a wàññeeku waaye yàqu ndax soppi nañ ko ba mu yor waneen melokaan mu ñaan nag wahab lana zuriyatan tuddiimu wala wa ab lana zuriyatan tujaddidu waaye nag nu may ay sët yoo xam ne tayiba la ñuy doon sët yu set yu sell yoo xam ne fañ war a jaar jaar nañ fa ba mel nañ war a mel ba defaru ba mën a defaree parce que tayiba la njëkkee ku defaru doo mën a defaree sët yu set a sell defaru ci biir ak biti ba mën a defare defaree tujaddidu ñoo xam ne liñ fi fekk danañ ko aar ba du yàqu du wàññiku waxtu woo ko gisee mu mel ni tey la day bees tàq waaye duñ ci yem teyidu la jamono laaj comme ni ko soxna Moussa di defee la mag ña indi woon moom la continuer waaye la ci jamono laaj dégg ngeen ko ni ma leen ko waxee ca transformation ba tey tey du la jamono laaj te luñ ca war a dolli ba mu gën a baax gën a rafet it dañuy am yitte dolli ko ca waaye nag ah, Cheikh Al Khadim moo mën a jàngale te xam nag ni ñuy wute lu baax waaye mu xam nag ne alxuraan dafa wax ne doom ju baax. boo ko bëggee doo xaar ba mu juddu nga doog di ko wutal ak mbaax danga ko koy faggul tàmbalee ko ca ndey ja wutal ko ndey ju baax booy takk boo bëggee am doom ju baax dangay takk ku baax ku yiw moo tax nag fu mu tàmbalee awaa muy ñëw ci bii wa jatan la wax saali atan tuinu ala tuqaa wal birri yaa muinu na nga nu may soxna su sell soxna yu sell yu yiwe yoo xam ne dañ ñuy jàppale laxasaayu takku di jàppale ci lu baax li ñuy wut ak liggéey bi ñuy liggéeyal islaam ak di ko liggéeyal rasulullahi di ko liggéeyal askan wi dañ ñu ciy dimbale su ko defee nag ba mu ca noppee mu ne nag bu boo nu mayee soxna yooyu nag doom ya cay juddoo it nañu mel nii ndax dafa am et lu ñuy askanal ci Cheikh Ibra Faty borom daaru leen la ñu wala ñu di ko askanal léegi ci sëñ Maxtaar Binta Lo waaye benn la ndax sëñ maxtar Binta ci école u euh, Cheikh la génnee wala ba jaar na ca kon ku ko ci wax rek référence la dañoo ne dañu daan wax ne gépp kilifa goo xam ne day wala kum mën a doon sax ci koo xam ne dañu lay taamu dañu lay taamu mooy ñi bëgg am seen doom ju ñuy dénkaane ku leen ko yoral dañ da bokk ci ña ñuy taamu te fekk yow taamu ko lu ñu la jox rek nga indi nga jël ne danga nga bari le waaye danga nga bon le lu baree baree bari ndax lu nekk danañ ko bub andil la maanaam ku ñuy taamu te doo taamu man ngaa bari le waaye la ngay baax mën naa bañ a bari ndax lu waay for andil la mu ne ñuy taamu nag te ngay taamu mën ngaa bañ a bari le waaye loo am mu baax ku ñuy taamu te ngay taamu mu ne ku kenn taamuwul nag ngay taamu doo am tus seetal loolu loolu mooy li Seexal Xadim wax su ma tax Seexal Xadim gis nga li mu wax dafa wax ne dafa xam ne bi muy daata ñaan ay doom yu baax soxna su baax la ñaan yàlla may ko ndax dëgg la facteur la la dëgg la doo ci yem man ngaa sa ndey euh, sëñ bay jaxate wax na ko Cheikh al Xadim wax yi nag sa ndey ak sa baay baax te jàppoo bakkan di yar faw taxtil nga dib sangkat la ngay sange sa kam du wërsëg wu yaa du ab juddu lii lii wér na tey far ko xam ci ak jub ak maandu ak yar bu mat la nit daal rawanteeka sa ngay kemam sëriñ bee ko wax waaye nag facteuru boobee ngay wute loola soxna su baax si da caa jiitu parce que wax naa leen ne soxna si mooy école bu njëkk bi nga xam ne tey li tàmbalee ci xale bi bi mu juddoo ba muy am juróomi at wala juróom benn at dem daara ci loxol soxna si lay nekk mooy école bi njëkk ci moom kon su fekkee ne yàlla dafa dogal muy ku baax ku jub ku sell ku am xam-xam ku bëgg xam-xam ku bëgg ak njub te jur doom ji nga jur ko ak moom loo ca def loo cay bëgg moo la koy gën a bëgg te da koy ànd ak yow wutle la ko waaye mardi taali su fekkee nag day koo xam ne safaan bala jàngut yëruwut melut na mu war a mel ah boo xëccee aw fee mu xëcc aw fee parce que lu faaku du si in la yoxti yi kon sëriñ bi fàgg woon na ne liggéey bii ñu wax léegi waa barsàq nekke woon ko ci njaareem soxna fat ak i rakkam nekke ko fi ñaanal na ñaanal na yàlla may ko moom ak ay doomam ay sët yu mën a assuré ndono la waaye nettali naa bëgg dem fii ci ci ci jàkk ci ci bibliothèque bi ne soxna Fatima dey sëriñ ma Samba Njaay moo ma ko nettali moo ko nettali sama baay boog ma fekkee ko sëñ ma sàmba njaay cey dàng mooy moo taalif soxna jaara si géej gii ne daa dem daaru salaam fekk seeti soxna may kubra dafa nekkan xaritam fekk fa soxna ami seex maam lum ko nettali ne ko ah waaye nag soxna fatima sun makkan moo nu ko nettali demal mu waxal la ko boppam ndax comme yow dangaa fonk lu luñ la wax nga yaxal ko im ñëwee mu ne ko moom day ab yor yoor la ma toggal ko laaxu mbër béef moom ku baax ki bi mu ci jëfandikoo ba noppi jox ma la cere sama barkeelu ba ma dellu see mu ne ma Fatima ma ne ko Mbàkke mu ne ma lépp loo xam ne day lu ma xam ne lu ngeen mënta ñàkk la ci luy yéwénal seen wàllu àdduna ak lu leen di may texeeg ëllëg ak mucc faggul naa leen ko ci ñaanal leen ko yàlla mu jàpp ndala leen ko waaye Fatima ma ne ko Mbàkke mu ne waaye ndimbal na cay fekk loxol borom lu mën na doon ci yooyu da ngeen di laxasaayu jaar ci yoon wi ñu koy jaaree wut ko ci duñ koy wute ñaan googu ma leen ñaanal ak yërmande yàlla mën leen a gàttandoo bu dee lu ngeen bañ mu agsi ci yéen it ñu leen ragal da ngeen di fëx wan ko gannaaw ñaan googu mën a jaar seen diggante ak yi loolu musal leen ca waaye kenn du toog fa nga toog naa na ma ñaan gi fekk foofa kenn du ko woon gannaaw naa na ma daw na ma dab kon nag ñaan gi itam sëñ bi ñaan na ko waaye nee na ku ci bëgg a jot dangay ngay jug ko mooy jaar ci yoonu mu jàpp dalal la mu nekk nag ne tabaarakallaahu am na ñoo xam ne day fi ñu toll bu seen bàjjen yooyu del si woon du ñu rus mukk ndax yor nañ ay daara tey dëppale nañ ko ak li seen maam waxan muy daara joo xam ne tey tëj tëyudi ja feeñ na ca daara internat la doon joo xam ne ay tutangal al di leen xam lu ay farataam ak attey laabam ba mat sëkk waaye yar leen fa ci jigéen dañ lay soloo di leen fàttali soxna maam bu busa nam daan soloo nam daan comporté woo ba noona la ñuy mel di ko dund di leen ci nettali ay xissa ñu di ko mokkal ñu nekk ñoo xam ne soxlawuñu or amuñu soxla ci ay boîte or amuñu soxla ci ay ganila amuñu soxla ci dem ay xew ay ngénte di fa yendu ba ngoon wala ay ciit yooyu teluñu ko ña nga ca daara ja xale ya lañuy ñuy wéttali jaw yi xale yi moo leen dàqal seen kër yu rafet yi wallahi laasim am na ci di defar ay nit waaye nag pour santaas ba am na ci waaye boo seetee ña ko war a def ak ña koy def boo ko boo ko comparé du ma dugg ci pourcentage de waaye sore na lool kon nag ñooña ñoo moom soññee bi mu am rek ab yóbbante boo xam ne depuis 2005 2005 2006 yóbbante boo xam ne bu ak jaaxle lal ak lëf ci kersa boo xam ne ba ma juumut jóge na ma ci juróom-ñaari nit entre juróom-ñaari juróom-ñett ñoo xam ne ñenn ñi fii ci dëkk bi lañ eh, fii ci réew mi lañ nekk ci diggante ndakaaru ak ak Thiès ak i Kaolack ci dëkk yu mag yi am ci ñoo xam ne bitim réew lañ nekk muy ay taalibe bi piir yooyu Xaadimu Rasuul yoo xam ne dañoo bëgg fu nekk di fa dund seenu taalube waaye seen njaboot ga ñu yorit ñu fexe ba ñuy dund ak taalube jël maam soxna jaara ak njabootu xaadim rasul gi def ko référence ci seen col seen comportement seen waxit seenu defin laxasaayu ci lenn lu ñuy xeebe yoon wi wala lu ñuy yabe yoon wi duñ ko gis ñoom duñ ko gis seenu njaboot bëgg nekk model boo xam ne ku leen gis ne lii ña ca nekk ci bitim réew ña ci nekk bitim réew sonn ca nag lool am ci ñoo xam ne njëlbeen ko sonn nañ ca lool daanaka geer la woon ñoo ko digganteeg seenu njaboot parce que milieu baa ko waral ba yàlla defal leen ca tawféex waaye ñoom ñooñu tey ci diggante at yooyu kenn ku ci nekk bu yëgoo ak sa morom kenn ku nekk am loo ma jàmbat loo jaaxle loo xam ne lu la dal indil la kersa akuk jaaxle mooy dangaa ñëw benn bis ànd ak sa njaboot googu tey ñëw seet si sa sa sa sëriñ siyaare si comme da ngay yendu ah mu wax ne jigéen ñi moom mën nañoo dem ca kër jigéen ña ñu mën a nekk féex foofa jigéen ñi yàkkamtiku lool yàkkamti parce que tàmbali ñoo dund loola ba mënatuñ ko bàyyi comme nag ñoo ñëw fii nga xam ne mooy référence bi mooy royukaay bi am na lu bari lu leen réeran ci seen diine surtout ci lu mel ni attey laab ak yu mel noonu ci attey lu jigéen war a xam ñu daal di jàpp nag ne kat comme nag tey ñëw nañ ci kër gii moom ci kër soxna yàlla ñuy dem ah tabaar fakal la bu ñu demee moom foofa lu nu réeran loo xam ne xaw xaw na noo am kerse ak laaj ko góor wala suñu jëkkër ji sax xam-xamam àggu fa danañ ko mën a laaj danañ fa mën a dolli koy lu baree bari loo xam ne tey suñu taalibe suñu gëmba waaye nee ñu ñu bari jàmbat nag ne bi ñu accès di ñu am surprise parce que loolee ñu leen doon aaye seen jëkkër sonnante di leen ci aaye reyante ci ak ñoom bañ góorgóorlu ba mel noona bañ agsi surprise bi ñu am mooy dañoo gis seen doomi sëriñ ñoo yi lenn ci seen seen doomi sëriñ ak sa bàjjen yañ fa indi maanaa di leen yarlu ñu àgg ca foo xam ne ñoom ci boppam sax bu leen seen boroom kër bàyyi wan wala seen bàyyi ñemewuñu fa àgg nag moo xam ci xeesal moo xam ci yokk karaw moo xam ci def boppum neen am ci ñoo xam ne sax dañ la wax ne la li leen yéem mooy bi ñu accès dañoo jàpp ne album yi ñu leen di jox albumu soxna su gaawaan albumu soxna njaxat albumu yooyu albumu góor yi yàlla mais ne album yi ay artist ay ñoo xam ne dañ leen sib bam ba gedd leen ay waykat ay nangam lañ leen di wan ak kaset bu mujj a génn ak gaam bi mujj a génn ci xeesal ak sewal naturel bi am léegi ñu maanaam mu nekk surprise bu metti bu rëy am ci ñoo xam ne bi ñu delloo nag ah comme photo photo yaag yooya appareil yi photo yëpp ne la waaye yow lii nga doon bëgg a rey yi nga nu doon bëgg a rey du ñu ci bëgg a rey xew ci jël sa bakkan tey sa sa sa doomi sëriñ yaa ngi nii muy loo xam ne wallahi alazim laa wax bu matul juróom maa ngi nattaloo juróom-ñaar ñëpp bind naa leen kenn ku ci nekk muy ay loo xam ne ay tawat la woon muy loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la ndax loola ki wut ak doole ndax lañu xaman effectivement mooy loolu boo ma saa gàddaay jóge fet damay fàttaliku loo xam ne man dama ko dund bi ñu lu jiitu muy dans les su sant jëm kaw ci Mirina sil sama sama dëkku baay soxna si et la yàlla dafa dogal daraan def bu noor jotee lu jiitu nee na muy dem kër bi mu nekkee tu tànk Serigne Cheikh Absa rakki Seex al Xadim bi woy juróom jóge mbakki Kajoor ci kër foofu la dem sëñ bi daf ko daan woo di ko fa téye ci njaarim juróom benn weer mu daan ànd ak yaayam di ñëw bu ñëwee kër soxna Sooda Sill mii ma wax di rakku yaayam ca kër kër gu mag fa lay xëy yendu si fe moom doon observé loolu kon lu baree bari ci waa kër gu mag gi dafa xam loola la fa am léegi nag ci mbiri na ñun ci dans sa années kii ci jamono yi Cheikh Modou booba suñ dëkkandoo yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ku ci war a sa soxna masaa war a màggal ci Touba wala sa doom bu jigéen dañ koy indi ci sunu kër weer dana koy def stage ci nan lay woddoo koddaay li da ciy am ñooñ dama leen daan yërëm trente mille danañ ko taxaw soxna si naa leen parce que foo foo kii rek ba dee la déedéet na gën a wàcc na wàcc de na wàcc ba ci dojor bi na jot foofa kenn du fa sol lu gàtt bu noppee mu ne la taxawal ba xam doxal boo doxee bu ubbi ko nii mu ne la déedéet na delluwaat bu noppee mu ne la ana ngañaay gi mu ne mu ne la takkal parce que foofa kenn du fa nekk di tekki tekki tekki nekk ci digg mbooloo di tas sa tur rek a takkaat takk ba mu dëgër boo noppee ci gumba si mu xool loxo yi ba xam egsi na fii bu dee camisole bi boo noppee mu dee la musóorul boo musóorul kol gi da koy xool ba xam est-ce que dara feeñ na wala déet nga xam ne stage lañ fanaan def un mois danañ ko def bu ñuy màggal si Touba bu loola jàllee mu laaj nga doog a dugg nag ci comportement bi boo duggee nan ngay toogee foofa kenn du fa toog di tàllal say tànk di jigéen déedéet nangay ngay na ngay leme say tànk na ngay nuyoo bu ñuy lekk na ngay na ngay comporté woo ca lekk ba kenn du fa yëkkati du kaw di wax ci jigéen lu la mënee nit ki man di defit saaga xew fa nangam xew fa stage booy ñëw fii ci dëkk bi maanaam nga xam ne loolu loolu mooy mooy mooy ci kii daale sane kii rek fee sane su san foo ci dugg loolu nga fay fekk loolu moo nekk ndono li nga xam ne moom lañu xaman kuy ñëw di siyaare si loolu la war a doon muy loo xam ne kon loolu ab yóbbante la boo xam ne ay nit ku dund waxu seenu maandute nag ak seenu kii tax na sax yàlla xam ne waxuñu ma a ah, ñan ñoo doon laajuma leen ñan ñoo ñan seen gën kan mooy seenub sëriñ ak fan la lool xewe ak lan la loola ñoom it waxuñu ma ko maan waaye fee la boo xam ne daal am na ñoom dund nañ ko ba am na ci koo xam ne sax malheureusement malheureusement daa mujj sax yëf ya ba mu ko toppee toppee topp daa mujj sax def na neen def na neen waaw dem wuti fa neen yàlla xam na ko yooyu nag di yoo xam ne kon ñu war a xam ndono li xam ne noon yi nga xam ne ñooy noonu yoon bi tey lañ gën a taxaw te waxtu wu nekk ñu ngi xool lu ñu gis surtout nag léegi parce que bu jëkkaat lu mën a xew bu fi ñëw doo ko gis léegi nag tey lu ci nekk dañ koy daal di photo fi saasa ka nekk ci fu nekk daal koy sànni audio yi ak réseaux sociaux yi nga gis lay xew mu amaat beneen boo xam ne nag yalwaan la doon naa ko yalwaan ci at yi yëpp waaye dama koy yeesal fii ñi ma ko jëmee ci ñoom nag sañ naa koo jëmee ci ñoom ndax nag bàmba ji fi ñu toll euh, euh, bëreetuñ ci ndey ñi ñu ko jëmee ci ñum ñi ci amakus néew ci ay ndey weesu nañ loolu kon ñi fi des mooy sunuy doomi nijaay yi nga xam ne ba ñuy sëyi sax gisuñu seen bubb gisuñu seen fas gisuñu seenu nag ak sunuy rak ak sunuy doom yu jigéen yi kon ñooñu am naa sañ-sañ ci adresse yi ñoom lii yàlwaan la sax aku ñaan moo ti ci bis yu mag yi bis yi bis yi màggal yi xam nga bis yu ñuy fàttalikoo góor yàlla yi dafa am lu ci alquran wax seexal xadim ñëw feddali ko alquran lu mu ci wax wa kulla naqsu wa kulla naqsu alayka wa kulla min alayka min rusul maa nu sabbitu bi fu aadaka wa jaaka fi asi alxaqu wa mawisa wa dikra lil muminin muy e, kenn ku nekk yonent bi dafa wax sunu borom da ko wax ne ko histoire yonent yi ma lay nettali ak seeni jaar-jaar li ma ci jublu mooy nga mën a xam fañ jaaran ba am li ñu war a am yow nga jaar fa ñi nga àndal di wut yàlla it xam gaa yooye ñañ àndalan du dul yàlla fañ jaar ba am loola ñu mën ko ca am kon nettali liggéey muy nga jële ci ay leçon Seex al Xadiim it ñëw nenu xuqal buka ala saadaati nim waati tabki araadi ale im ka samawaati góor yàlla yi fàttaliku it fàttaliku leen lu jaatu la waaye niñ leen di fàttalikoo nag mooy da ngay wax leeral nit ñay teewee barab bañ leen di fàttalikoo muy màggal ga wala cant ga góor yàlla yooyu cër bi ñu am ci yàlla fan lañ féete woon yàlla ba am ko wàccuwaay bi ñu am ci bindee fii bu boo leen tuddee dënn yi rëcc fan lañ féete woon doomu aadama yooyu ba am ko mu ne kaadoo ibadan bi taatin li rabbi imoo wa kaana jàll la um rabban bi minaati foofu lañu féete woon yàlla li yàlla santaane lépp ñu sax ca dakk lim tere ñu sori ko wa kaana jàll la um jadoo ko ñëw kaanoo yaudduuna tarkal wirdi ma shibain min alxalaali min asbaabi almusibaati kaanu isa laylu arqa sidrata alakin qaamoo siraan li ihyaay di jàddaate ñu ne ko fu ñu féete woon na gaa yi mu ne qawmun tariqatu um teg fii murida azan min almaridi wa anwaay alxururaati ñoo xam ne tey ku ànd ak ñoom di wut yàlla dañuy jaar sa digganteeg lépp lu lay gàllankoor sa diggante ak sa borom teg la ci yoon wi nga xam ne cow coow ba àgg ci yàlla fekk fa la la tax alqawmu laa yasqa jëli si umoo ñooñu day kenn du jóge fenn ñëw siyaare si leen yaag sa njaboot dem di ko riccu ndax ñett ay soo toog ak ñoom lu tuuti tuuti danga nga fa jëlee loo xam ne mën nga caa dund ba déwén di ca gàgganti ko doo fa gis dara loo wërta gis ah, ah sëriñ bi nee na nii lañu war a fàttalikoo góor yàlla yi kon nag tey bis yi ñuy fàttaliku góor yàlla yi dafa am lu ci lu lu ma ci constat bu ma ci def moom laa jëmee ci sama doomu bajjan sama doomu nijaay yooyu nga xam ne sañ na maa wax ak ñoom ak sama rakk ya ak ñaccey samay doom ñu xam ne bis yooyu portale la boo xam ne ci la ñuy waree fàttaliku góor yàlla la gu dundan ba jóge fi ña ko fekke wutoon wala ña ko fekke woon te gëj ko ñu delloo si waatal leen ak dundam ñu mën caa roye man caa jànge kon bis bi exposé la war a doon boo xam ne duñ yam ci rek wax na mu melan ak nam daan yare ak fa mu féete woon nit ñi waaye dañ koo war a wane bis ba daa war a nuuru borom ca lañ fay def ak nañ koy defee lépp ku fa ñëw da caa war a gis borom bis bi war a faa gis loo xam ne lii kat bu borom bis bi doon dund kenn ñemewu koo def ci biir këram waxuma laa di ko def ci biir bisam loolu dañ ko war a moytandiku ma seetlu nag loo xam ne yóbbante naa ci sax ay ay yoon yoon xam nga bis yi dañuy def bu ñu koy def ñaare dafa am aada ju rafet ju ju ci ci sët ak sët sëtaat yi def lu baax mooy sàkk ci bis boo xam ne dañuy delloo njukkal seen maam muy ak guddi muy loo xam ne occasion bala boo xam ne da leen di boole ñu gën a xamante ña cay góor ña cay jigéen ñi ci sëtu ci ndey ñi ci sëtu ci bàyyi muy lu am solo duñ ca yem waaye yeneen këri diine yi nga xam ne yi ñoo bokk yoon wi dañ leen di invité ñoom it ñu ñëw xamante gi gën a yaatu ñu tànn ab tem woo suñ naa Sàll ne ko yaa nuy waxtaanal tey ci sunu maam jii nan la nekke woon ak nan la melan pour nu mën koo roy lu baax waaye nag jataay bii daa war a référité wu ci loolu waaye léeg-léeg ndeysaan boo xoolee fa soxna yu ya nekk maanaam tirbine ba soxna ya nekk boo ko xoolee léeg-léeg doo xàmmee doo xàmmee jataay ba ak ñu nekkan soraano ndax mbooloo mu bari ñoo xam ne ca ñoom du mel ni tey sax concours la finalu concours la nag tey concours bi ñu doon def ci at bi ci xeesal wala kara karaw gudd wala wala wane ay mees yu rafet wala sëwa naturel tey lañ koy war a feeñal da ngay gis ñu bari ñoo xam ne ci ñoom du ñu musóoru noonu lañuy ñuy bàyyee kol gañu yor dañ koy teg nii ba noppi caméra bi fu aw rek ñu kobos ko ne ko kaay jël am ñoo xam ne dañ koy teg ca kaw ndax la musóor war a jariñ muy musóor bopp bi ba mu ba mu fatt ba doo gis benn karaw contraire ba la ñuy def parce que mees yi ñu yor ak sëwa naturel bi ñu bëgg a wane ah te mu gudd fokk ñu bàyyi ko noonu kol gañ war a na yor nga xam ne tey na ko soxna moom yi ñoom doon defee gannaaw musóor gi jël sirub rabal teg fa ba doo kii lak kol ga war na remplacer loolu parce que sirub rabal bi xëy na moderne wul mais war a kol yi am kol yu rafet war na remplacer loolu kol ga dañ koy gàlloo léegi nag ba noppi vidéo boobu tey kaset bi balaa suba dem na Amérique dem na fii kenn ku nekk toog léegi nag taalibe bu nekk ci Amérique yor fa soxnaam ay doomam juddoo fa mu doon leen yar ci yarub ab taalibe bëgg ñu bañ a nuru ci seenu col ak seenu melkaan ne leen kat nun yoonu murit soxna jaara nangam nangam nangam tey bu toogee ci ab saalam tey ñu ne ko tey jii kat tey la bis sa sëb sëriñ ñu di ko màggal mu xool xool image ba xool xool ñooñee nañu mel xool ay ay ay sëti sëriñam ak i doomi sëriñam la mu doon aaye la mu doon aaye moom ay ay ay ay soxnaam ak i doom bëgg la caaya loolu lu doon addu tukki kon ñuy ñuy ñuy bàyyi xel loolu nan ko mënti koo xamee ne loolu mënu koo ko bàyyi bis boobu ñu jagleel nit yàlla yi moom ñu ñu bañ a fexe nag ñu fexe ba di ca wane melokaan woowa ndax xoolal nit yi àdduna yi képp sax nit yi àdduna yi képp sax xoolal bis yooyu ñuy taxawal muy bi bisu cosaan ak aada képp sax xool ko bisi cosaan ak aada sax dañuy jéem a dellu si col cosaan nga ak aada xool ko boo ko gisee suñ bokki séréer yi suñ bokki lébu yi seen kaaja yaag col gañ doon sol ak digissement ba dañ koy jéem a waa ma jeexal naa sax dañ koy jéem indi ngir dellu si li nga xam ne mooy cosaan parce que mënoo ne damay damay fàttali ko sama maam damay fàttali ko aada ba noppi wane leneen lool même ñooyu buñ la melutit bis bi moom dañuy fexe ba nuuru la ñuy fàttaliku ak ña ñuy fàttaliku comme nit yi aada yi ñooy def loolu nag kon yow miy fàttaliku nitu yàlla di sa maam di royukaay ci ab jataay boo xam ne dañ caa war a jànge war nañoo fexe ba bu ñu xoolee jataay ba ña cay góor ak ña cay jigéen ñëpp yor melokaan woo xam ne tey dañuy wane ah melokaan woo képp day nekk am njàngale waaye bu nekkee loo xam ne kat ay contradiction la du kii kon nag maa ngi ñaan maa ngi ñaan sama doom doomi bàjjan yooyu sama doom yi nijaay yooyu ma sañ a waxal ak sama doom yi eh, sama rakk yooyu ak sama doom yooyu bis yooyu ñuy sàkkal seen maam bu agsee nañu nañu nañu nañu terale seen maam fexe ba kenn am koo xam ne digissement yi yor kii na wax na man de nañ nañ def digissement xam nga eh, dañuy comme dañuy xotti ay yére yu ñuy noonu nañ wax ne nañ def digissement soxna moom yi bu beenee ñu ne nañ def tey bu soxna soxna astu gaawaan bu bee ñu def moo nekk lu saf xorom ne rafet tey suñ bisu maam bii daal digissement yëpp nañ def nañ def tey bu soxna moom yi bu bee ñu ne nañ def bu soxna may bu bee ñu def bu soxna astu gaawaan nañ ko daan defee eh, mu nekk lu rafet lu symbolique bu bu noppee bu jàllee bu nekkee jàllee ci waaye bis bi moom nañ ko jox li mu laaj ak li mu kii loolu daal mooy loo xam ne eh, lu lu lu am solo la loo xam ne daal bis yooyu muy muy ndonale kon ndono laa ngoogu nañ fexe ba eh, li ñu daan déggee ba ñu dul nawee bu kenn ak si fi noonu dunu xeeb ndono li mi ngi nii wax naa ko niñ koy aaree mooy delluwaat ca xam ne it moo gën dunu loolu ndax nag lu nu am ci teraanga am ko ci sutura loolu la tey mooy liggéeyal sëriñ bi mooy tax am noon du am lu mu mën a wax du am lu mën a gis surtout nag léegi am na ci loo xam ne ba tey wax naa leen kër sëñ ba kenn am na ay histoire yoo xam ne ci Daarul Muxti ak ci sëriñ Afia histoire andi na ko ay ñoo xam ne tey ay góor ñoo xam ne tey teg sa tànk ci kër jigéen ña dañ laa indi futti la bi ko sëñ bi yëgee futti la dóor la jox ay ponkal ñu dóor la ndax kenn mësu ko war a xalaat léegi nag tey ba bis yu bis yooyu amee muy bisu màggal yi ak yooyu tey boo demee fa soxna ya nekk taxawaalu kër yu góor yi yëpp yëpp yëpp tey dañuy bàyyi fa góor ña nekk foofa la ñuy nekk di animé transformé bis ba ba nga xam ne jataay ba nga xam ne da ngay dem da jàpp ni ngénte ak céet la ñee ngay wayaate ñee ngay taggaate ñee ngay taasu ñe ba nga xam ne doo xam lu muy noonu te seen tànk waru faa xand fa góor ña lañ war a yem jigéen ña yem fañ fañ war a yem mais dangay ngay fekk ne jataay jataay fa góor ña nekk sax fa jigéen ña nekk sax fa la góor ñuy taxawàllukat ya ak ñu jëmut fenn fa la ñuy ëpp ngir lu ñu mosloo ngir foofa la ñuy mosloo mais nag sacrifié nag yoon wi parce que kaseet yaa ngi daw moom maanaa fa jataay bi rek la kaseet yi daw noo ñu ko gis ah waaye yéen di ngeen di màggale ah yéen di ngeen di kee ah waaye seen bi yéen moom nangam lépp di daw ñu di ko teg ci suñ der bi di la ko wax waaye yéen du ngeen wax ci lii du wax ci lii te fekk yow doo ko yëg kon muy mbir moo xam ne mbir la moo xam ne jërte xeeb jërte ërël nañ ko ñeme nañ ko wax nañ ko def ndax liggéeyal sëriñ bi la te benn jiituwu ko ci liggéeyal sëriñ bi ndax lépp luy tax ñuy tilimal dereb yoon wi lépp luy tax ab noon mën a am buntu ci biir yoon wi loola fatt ko ak taxaw ci liggéeyal sëñ bi maanaam ji ëpp ko lépp luy tax nag ñuy mën a am ci aw yoon itam xeex sëñ bi jiitu ci ak ak ci ku mën a bàyyi koo nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa euh, jërëjëf sëriñ euh, waxtaan wi am na solo lool am solo gi foo ko takk weesu na ko euh, li ko tax li ko ëppal solo nag mooy danga boole ñaari fànn yi nga xamee ne xam-xam mën te ñëw te ñëwut muy théorie ak pratique an nazariya wa tatbiq bari na xam-xam yu ñuy wax wala bari na ñuy wax ay théorie la ñuy wax li nga fi wax tey nag day nazariya wa tatbiq nga boole théorie et pratique wax nga loo xam ni li ay théorie dong la wax nga loo xam ne lii itam li ci ëpp lenn da nga dama koo fekkee wala diw nee na ma wala nangam ak muy loo xam ni lii kenn ku nekk mën na cee teg sa loxo mu am loo xam ne lii nag wax nga ko waaye yaakaar naa sa ñoo ñu nga doon wax waruñoo yem ci ñoom aaya ba lañ war a dellu si xoo anfusakum wa ahlikum naara kon aaya boobu kon mel na ni buñ ko déggee pratiquer ko yooyu ngay wax du am ndax ñoo ñooñu ngay wax ñépp ci ay kër lañ jóge kër gañ fa jóge xam nañ nañ comporté we kon ñoo ñu ñu jógee ci ñoom war nañoo bàyyiwaat seen xel ci ne lii ñoom la war duyut kat yow nga nekk ku baax rek di jaamu yàlla loolu loo war a def nga def ca te sa sa njaboot nga bàyyi ko loolu neex ñu def doo xool ka cay julli doo xool ka cay woor doo xool ka cay sol col bu baax doo xool ka cay jaxasoo doo xool ka cay jaxasoo dafa am mag mu baax mu ma sa wax ne ma fekk këram dafa nekkoon ab wàccukaay mu ne ma euh, kër gi dey euh, kilifa yu bari fi lañ daa wàcc waaye kenn du gis jigéen lépp lu ñuy indi man maay dem jëli ko indi waaye jigéen doo gis jigéen muy adamul ixtiyaar boobu nga xam ne wax nga ne sëñ bi daana ci yare kon nono nono laa ngoogu nono la ni nga ko définiree muy jàngale ak yare forme forme nit ba nga xamee ne bii mën naa sukkandiku ci boppam njàngale moom nga xam ne moom la sëñ bi defoon muy baasam ba nga xamee ne am na loo wax lu am maanaa nga xam ne nee nga gisoo ko fenn loolu ci sëñ Tuubaa dong lañ ko gisee yaakaar naa ñi nga dëkkool am ci ñoo xam ne ci sa biir kër bi nga leen dëkkoo lañ mokkal alxuraan bind ay kaamil xam nga sëñ Mat Lamin Jóob da nga wax na ko ci soxna Faati Tuut ah waaw yo waajur sëñ Murtala ci biir kër sëñ bi la jàng alxuraan ba mokkalu bind juróomi kaamil waaye nag albalu tayyibu hmm? mu ngoog doomam ah, ah soxna ah soxna Jóob Mbàkke doomam bind na ñeenti kaamil waaw soxna muslim moom mu nga doon wax ci meññet moom la bokk kon nag lépp loo bëgg mu sax dangay wut jiw mel noonu nga nga jël ko wax nga ko ci biir ci sëñ bi léegi nag kon sëriñ bi noonu la ñu formé ay nitam yemal leen woon ci jàngal leen diine donc mais jàngal leen diine yar leen formé leen ba li nga xam ne moom la ñuy wax autosuffisance muy al iktifa su fekkoonte ne toppoon nañ ay jàngaleem ak na mu doon doxale ak waa këram nañ doon doxalee kon egg nañ ci tey ndax soxna muslima mu nga wax am na ñu bari ñoo xam ne xëy na am na ñu fekkiwut ay kii waaye fekk nañ ñun ay cere yim daa def ak ni mu ko daa paqueté ak lii lii xew léegi bam ba mu fi nekk passé woon na foofu waaw kon suñ xaarim daal euh, waxtu waxtaan bi am na solo euh, sëñ bi nag moom noonu la demee lépp lu muy def ci ak njabootam la koy tàmbalee ci ay soxnaam ay doomam dundu nga ñu dem ko demee ni soxna aw buso ak soxna euh, amintaloo soxna aw buso daanaka mu marit la woon mu marit la waaw ñoom noonu lañ daa taxawoo tey itam li gën a yéeme ci ñoom ak doomi Serigne Touba yi ñi nga xamee ni ñoom la leen yàlla booleeloon doomi Serigne tubaay yi ñi nga xamee ni ñoom la leen yàlla booleel ñi nga xam ne ay taalibe lañ jàppe mu ñu leen ay taalibe seen i sang lañ leen jàppe woon muy li ma waxoon ci soxna jaara daraj amoon seen darajay bàyyi dañ yoroon dañ fa dem woon kenn ku ci nekk ab taalibe nga woon moo tax itam am nga fa loo xam ne lii maanaam firndeel na jëf ja nga doon jëf. dëgg la dëgg la léegi nag loola su fekkente ne dañ na léegi ba nga xamee ni bii yow bu ñu la joxee koo xam ni kii sax sa taalib bàyyil da ngay da ngay wan ni kii kat man du sama nawle dañ ma koo jox waaye du sama nawle waaye du sama kii bi ba la nga fa war a def du ko def bu ëllëgee mooy la koy waral mooy am doom joo xam ne ji du tuddoo baayam doom yi taxoon na jiw rek laay wax lay wax rek waaye du tuddoo baayam. dëgg la dëgg kon xam nga loolu euh, xam nga lu dëgguma sin seexu naa mm-hmm. soxna may suxraa daf cee way way wu am solo mm-hmm. ne moom ak soxna ami seex mm-hmm. noonu la leen sëriñ Moodu Mustafaa yare woon dane Cheikh Moustapha jikkoom ju tedd jaa tax mu naa ma jikkoom moo di nit ngir mooy tax mm-hmm. muy mën a sàkku ngërëmal kam nekkal mm-hmm. di jéem a dab bànneex ba bañ koo def kal mm-hmm. nekkin wa gën mooy suturaal ko wax wekk ko te lum la wax nga dégg booleeg jëf ko lii tax ma toog dëru di sàkku barke ak ngërëmal Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke defu ah, ñu ay moroom waaw defu ñu ay morom <laughs> ñooñu suñ bee doon suñ lépp kon suñu xadim ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waxtaan wi am na solo euh, ñi ci bi nekk ñu ne ci bitti sax réaction yi bari na kon daal euh, yal na la yàlla fay euh, waaw Moukhaddamatoul Khidma nee nañ ñu ngi lay sant bu baax a baax ndax xam nañ ni amoo jot waaye man mi nga xam ne sax man nga bokkal waxtaan wi yaa ma fi jiitu fuuf kon man moo lay wal ne yëfi yëfi ñor na la ñoo ngi ñaan yàlla sàmm sa xam-xam leeral sam xel bàyyi la fi te yàlla bàyyi fi suñu kilifa gu baax gi mu Cheikh Mamadou Mountakha te yàlla jële fi mbas mi nga xam ne moo fi nekk amiin ci barke Cheikhul Khadim kon suba li ñuy war waxtaane mooy alxurriya fi misaanul islam liberté ci ni ko islam gise ki koy def mooy sëriñ Serigne Fallou bu Xasan suba ci cinq heures et demi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp